wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam muy jàmm ak yërmande ak barke yàlla na yàlla sëmbataan ko ci seen jëmm yu tedd yi di jiital ci nuyoo ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom yàlla yokkal ñu fanam ba mu doon kéemtaan ci àddina bi yokkal ñuy wéram yokkal ñu ay xéewalam ba li mu bëgg liggéeyal maamam Seexul Xadim liggéeyal ko maamam Soxna Jaara liggéeyal ko waajuram Cheikh Mouhamadul Bachir liggéeyal ko yàlla ci jaami yàlla yi sunu borom may ko kattan bu mu ko defee ba def ci lu kawe njort ak mbooleek njabootu sëriñ Touba gi mu ko bokkal gépp di teg euh, sunu sëriñ sëñ Saliou Mbacke mi yebalan sëñ Moudou Faye mu fi jóge léegi di ko sant bu baax di ko gërëm ci taxawaay bi wax dëgg yàlla sedd na suñu xol lool ndax ni mu ko waxee xam naa ak baaxam la rek waaye noonu xaj na melu nit ñi waaye sante ko yàlla bu baax a baax a baax ñaan suñu borom kàddoom yooyu yàlla barkeel ko ba nu yéegi nu ca màqaama yooyu mu teg te àggunu ca yàlla na ko yàlla defal di gërëm bu baax a baax maam Balla Mbàkke Maxtaar mii nga xam ni ko képp ku miin jataay bi képp ku miin jataay bi miin nga maam Balla mii mu ànd ak ñun liggéey bi ba li liggéey bi tàmbalee ba léegi waaye liggéey bi li ko jiitu mooy liggéey euh, sifa euh, cabinet sifa u rahman ci la tàmbalee cabinet sifa u bu ñu koy dégg maam Balla mi moo moo tax ndax liggéey bi li ñuy wax informel daanaka coocu la juddoo ci la yàgg ci lool sax moom moo ko jëlee daanaka ci informel yóbbu ko ci formel moderne ndax dama waxoon ni du ma musa dem ci ab rajo wala boog du gaaw ñu baree bari mag ñi ne ma nañ lay demal ci rajo yi lii du lu ñuy bañ a wax ci rajo mag yi koñ mi ñu bari daan nañ ñu ko wax boo mënta dem ci rajo kon ñu demal la ci ndax lii du lu ñuy bañ a wax ci rajo ba am benn bis ma waxtaan ceeg moom moom sax mu yebbalal ma ci booba xamagut lu mu de lu liggéey bi wund waaye yàlla def bi bi yàlla gindee gindee gindi ko ci liggéey bi li mu wund ma xam ne liggéey bi lu liggéey caaxaan moo dawal otoom ba ci bundu kër gi ni ma tey dama bëgg ñu dem rajo ma ne ko ah maam Balla yow yaa ma aaye woon rajo bi sax de mu ne maa la ko aayoon maa la ko digal <laughs> ma daal di ànd ak man ma ne ko yow de loo ma sant kay dinaa ko def daal di ànd ak man ba rajo communiqué biñ ci jëkk a def moo ko bind ci loxol boppam dugal sa service commercial ni leen ñaata lay jàll ñetti yoon par bis ñaata yoon par bis ñetti yoon ba ba weer bi am bis mu am am 30 ñu ne ko cent mille francs lay fay mun leen maa ko garanti ñu daal di ànd ñi bi ñëwee ba garage ma ne ko wàcce ma fi ah, ma ma ma ma jël taxi mu ne ma déedéet man damay jiyaar liggéey bii jiyaar la dama la yóbbu fa ma la jëlee woon andi ba ci ci kër gi lu ma tuut semaine mu daal di waxaat ni ma dangay ngay def benn émision ndax lu ñu ni kenn mënu koo faj tension lu ñu ni kenn mënu koo faj ku ni da koo mën a faj faaw nga wax ak nit ñi daal di àndaat ak man ba rajo mu ne ma la ngay def benn émission boo xam ne en direct la ñu laaj ba xam ñaata la bañ ko laajee mu ñu ni ñaar fukki junni la mu ne ma danga koy def bi sàngam ma def émission boobu mu ne ma xaaj bi danga nga wax lan mooy tension ak li koy waral ak yee ci aju yëpp xaaj bi ci des ñu ubbi téléphone yi ñu def noonu mbir ma nag foofu la ubbi ko macha allah tegiwu tànkam nag ba bisub tey bii ma wax ak saa yu ñu ngi ñu ngi jariñu ci xelam mu duñu xelal di di ñu tette di ñu ñaanal saayir ak ci baatin ñaan sunu borom mu guddal fanam lool yokk wërsëgam lool yokk wéram lool ndax ba ñu xamante yàgg na war na ma 30 ans Dakar defe naa waxal naa ko fi daaw moom mu yoroon ma jàngal na ma eh, eh, eh, tasawudu saxaar ak jawharu nafis ba tuuti des ca jawharu nafis ba mu ñu tàggaloo ab dëkkuwaay mu ñu xaw a sore looloo ñu tàggale ba mu amaat loo man fukki at nangam ñu doog a dajawaat lawan ca moom ba ma xamante moom démb ba tey moom laa xam ci moom ku baax ku macha allah ku yàlla may xam-xam te mu tabe ci xam-xam tabe ci dara ja ngi ñaan suñu borom guddal fanam loolu yokk wéram barke Seexul Xadim di gërëm bu baax a baax nag yéen ju tedd ñi ñi nga xam ne yooyu sëriñ daara yi yéen amuñu seen pay yàlla rek am seen pay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla fay ngën gi fay man de yéen la may daan la ma daan wax rek ki nga jàpp moom nga mën a bàyyi waaye ki la jàpp mënoo ko bàyyi te yéen xam naa jàpp ngeen sax nag jàpp naa leen waaye jàpp ngeen ma yaa ñaari jàpp yooyu yàlla na yàlla dëgëral bu ne ma mooy mooy kóllëre kóllëre ñaare koy séq kóllëre ñaara koy séq yàlla bu ci bu ci dara jeng yàlla bu ci dara mejj yàlla yàlla dëgër ba àjjana barke Seexul Xadam barke Seexul Xadam sant naa leen bu baax gërëm naa leen bu baax lii ñi niral lu leen di teral di wallahi alasim xeeb naa ko lool la ma leen daan wax rek su fekkee na sama sago la bu fekkee ne sama bëgg-bëgg la man fekk sama xol de fekk sama xol bu fekkee sama xol sedd bala sama xol a sedd ci yéen damay dégg ñu ni cité yee day wala dëkkuwaay yélee day ni ko tubaab di waxee cité enseignant coranique ñoo ko moom boobaa de sama xol dina sedd lu ca dolli ko sama xol gën a sedd loolu rek laa leen yéene wala lu ko ëpp barke Seexul Xadim yàlla sedde na ko lu ñu leen defal doyul lu ñu leen gërëm doyul waaye sama kóllëre yéen maa ngi leen koy seedeel fii mooy sama ñaan dama koy wax maam Balla mii dina waaw am na su yoo xam ne sax waree su ko wax waaye dama koy wax nag saa yu ma xëyee dinaa leen ñaanal sëriñ daare yëpp saa yu ma xëyee di leen maa ngi leen ñaanal ñaan ngeen di ma ñaanal ñaan goom suñu borom nangu ko damay ñaan suñu borom mu nungu seenub liggéey làq leen ko fu làq yëgut def leen ci xoli jaam ñu jàpp leen jàppale leen ndax lii sëriñ bi wax léegi daara dafa metti te nit ñi xamuñu ko dëgg-dëgg xam ndax ñi nga xam ne dañoo war a mën a dimbali daara sax ñoo gën a mën ñoo gën a tëlee dimbali daara yàlla seede na ko ñi gën a mën a dimbali daara ñoo gën a tëlee dimbili daara te daara dafa mat a jàppale mooy solution bi nga xam ne moo man a suqali àddina fi mu toll ci situation bi mu toll waaw àddina euh, àddina lislaam sa ngëm na ndax sëñ bee wax na ko léegi bu ñu demee ba ngóor jigéen di lëmbe ci àddina bi barki dee ñuy jébbalu ab kaamil koo xam ne dañ ko waddee drapeau ngóor jigéen nga xam ne euh, l'islam sëngëm na te li ko mën a suqali li ko mën a jël loolu mooy alxuraan jàng alxuraan jàngal gone alxuraan yar leen yarub diine kenn gisagut ci mbedd mi kuy toj di taali pënu di toji oto ñu nga ko dàq mu dellu ci daara doo ko gis wallahi lasim doo ko gis waaw bu ko defee loolu yéen ñi taxaw taxawaay boobu kenn amul seen pay yàlla rek am seen pay yàlla na leen yàlla fay te nag yàlla ni leen fay li Bamba wax ba euh, euh, dëgg la bu yonent bi ne ñi gën ci nit ñi ñooy ñi gën ñi jàngale alxuraan yàlla wax ni waa alxuraan day ñooy sama ñooñ waaye loolu doy na wallaay asim loolu doy na waaye day teraangay àddina dingeen ko am kii sama seere la ci li may wax ki ma ko doon waxal ab goroom la ci boroom xam-xam yu mag yi la bokk jànge ca réew yu mag ya réew yi xam-xam ya am na ñu mu jàngale duma ko ci jot lim mu sos daara bëgg lislaam ci bokk ci la bokk ci ki mu for ci ñi mu formé ci la bokk jàngale ko fukki téere ak lan ak ñett yoo xam-xam yi sëñ Tuubaa ah. waaw dégg sama xarit la dama koy siyaare ji benn timis ma fekk mu mu mu mu tàng ma ne ko sëñ bi lan la njaboot rek rek lii daal sëriñ daara yëpp ko dal rek jërul àgg jékkuwu jamono ma ne ko waaw sa kër gii mënoo ko jox waañ marché caaro yi ñu tabax ko këru kaw agu suuf nga dëkke kaw gi ñu def suuf gi ay si ay dépôt mu ne ma man boo gisee sama xol bi tàng dama am benn mètre caaro yi benn mètre suuf amu ko bi ma ne ko barke sëriñ tubaa di am kër gu sedd sa xol mu ne ma xanaa ma ne ko barke sëriñ tubaa di am kër gu sedd sa mu daal di dëf ñu ko waasee waxtaan ma ne ko teguma ko ci xëy bu nag yéen laa dégg rek ngeen ni ku liggéeyal yàlla yàlla liggéeyal la ku nekkal yàlla yàlla nekkal la dégg nga wax ji mu daal di def ñu waxtaan tuuti mu ñaan ñu dem diir bu gàtt mu woo ma yónnee woolu ma ma ñëw mu tegal ma plan ni ma la nga doon wax de am na ci ci feeñ ma ne ko xam mu ne ma ñaari plan yi ñu def penture bu xonq man lañ ko jox addiyee cité M3 ma ne ko des na de mu ne ma gëm naa ko mu ne ma photocopier ko boo gisee ko jënd nga jaay ko ma photocopier ko yóbbu dem diir bu gàtt mu woo ma ni ma kër ga genn benn nga jar na de 4 millions terrain ya ma ne ko des na de mu ne ma gars yi ne duñ ma jox xaalis bi imaam bi mu wutu moom moo tëye xaalis ba ni ko duñ la ko jox daal di commencé wër ba gis kër gu ñu jënd li tax ma di leen ko wax dama leen wax li Pambal la wax laa tax ma di leen ko wax ñu ñu dem diir bu gàtt geneen kër ga jar beneen terrain ba jar gars yi commencé ñii indi dix tonnes ciment ñii indi une tonne ñii indi cent mille ñii indi cinq liggéey boo xam ne ni mën naa la ko ñetti weer lu ma xam naa sega mat na ko bu ko ëppee ma dugg tabaxal te kër goo xam ne boo ko gisee da nga yéemu yàlla sa borom wallahi la asim laa rahman bi muy tuuxu fekkuma fa ba ma may fekk ma ñëw tubaa ñëw ñëw ñu ma eh, diw de ñëwoon na fi di la di da da doon tuux da la ko doon yëgal si ma dem mu toog ba yàgg ma yëngal boobu mu ne ma fàttali ko suñ ma ne ko waaw <laughs> mu ne ma léeg-léeg dama yëngal sama bopp ndax man ci gént laa ne wala néew ma ci gént man ko néew ci gént daa des laaj ko miim tegaat na tegaat na de te mën naa tegaat mën naa tegaat mën naa tegaat loolu mi ko jeex na tàkk kon maa ngay teg ñett loolu mooy li maam daal wax dina métti de waaye ku koy def te jëm suñu borom ji tax di nga tedd fii ëllëgay raw barke seexul xadim moo fi des nag jàpp leen ci bu dëgër sama xel dal na nag bu baax ndax nit ñaa ngi gaa yaa ngi ñëw ko sëñ Kosso Seye mais am na ku mu bokkal kuréel bu ñuy wax tu euh, alxuraan ci kanam waxaat na ni dina teew ci mbooloo mi waaye ki ko war a na indi dafa am mbokk mu gaañu euh, euh, Europe ñu war ko indi aéroport moo ko war a gàttandu looloo tax ñëwuñu ku ñuy wax um, um, maam Cheikh Anta mu mu sëñ Moutala waxaat na man envoyé na ma vocal ni ma dinaa teew ci mbooloo ma te loolu la bëgg na xamal sëriñ daara leen man mii daal naa tool boo xam ne ni bàyyal ko suñ daara rek moo ko tax a jóg muy Touba ca euh, alxuraan ci kanam te ñeneen a ngi ñëw ñeneen a ngi ñëw ñeneen a ngi ñëw fa ko jàpp foofu la sant nañ leen gërëm nañ leen euh, ma gàttal foofu ndax waxtu wi de sant bu baax a baax sëriñ si mii nga xam ne moo lañu teg ci boppu xuddaamul quran muy moom itam ku jàmbaare ku bari Pastef te nu yàgg lool wax da yàlla moom moom fa ma teg sax dafa kawe njot dafa dafa kawe lool ba mu ëpp euh, ak baaxam rek la ndax nit ku baax moom fam nam fa baaxam toll rek fa lay toog teg ñëpp foo mën a teg waaye ku baax a ngi nii ku gore ngi nii ku julleete ngi nii te boroom xam-xam la jàngalekat la imaam la lu baax rek a ko ñor moo sëñ xaadim mii fu xoddaam ak yow mii alaaji omar fu xoddaam bi àgg yéen a ko fa àggale ndax yéen a yor liggéey bi yéen a yor ak ñi nekk seen ginnaaw ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom mu boole leen taxaw yéen itam guddeel seenu fan yokk seen seeni xewal di di sant ñëpp xam naa bu ma guddalee waxtu bi day jeex di bokk eh, sani eh, sant mbokki jullit yi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi ak ñi dëkku ci koñ bi yëpp te teew fi ñu ngi sant yëpp di wax eh, matlabu sifaay boobu nga xam ne moom la fi sëñ xaadim doon wax muy daay daayira matlabu sifaay sëñ Muntaxa taxawal ko muy ñu yor fajum cosaan mi ci Tuuba ak li ko wër yàlla def man mii ñu doyloo ma ni ma yaay trésorier bi damaa bañ ba tëdd ci naaj ba waaye damaa bañ bañ ñu ni ma bañ yow bëgg yow jox ma ko man li lay wax mat lebu si boobu képp koo xam ni dangay yor kurus di ñaan walla nit jaaxle nga ni la ñëw nga bind saw sab xaatim wala sab aaya man nga caa bokk ñëpp la ñu woo képp ku mën a jariñ nit ci ñaan moo xam kurus la moo xam xalima la moo xam garab la man nga caa bokk ni ñu ciy bokkee nag mooy da ngay jënd carte membre junni ak ñeenti téeméer ñeenti téeméer yi social yi dem de cotiser at mu ne junni ci daayira bi dañ koy jébal seen Muntaxa jébale nañ ba ni fan yee junni ak ñeenti téeméer yi ci des Tuubaa ca kanam dañuy liggéey ñoom ndax ñoom dañoo am yéene tabaxal ñu hôpital boo xam ne pajom cosaan lay lay def fas nañ ko yéene te ñu ngi ci ñu ngi ci ci programme bi bind na bind nañu demande ba déposé ko dañuy liggéey ak ñoom barki dem rek laa werte ji woon léegi ku ci bëgg a bokk ñeen ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer at mi yëpp moom ngay cotiser junni beeg ñaari junni yeeg ñeenti téeméer Touba ca kanam la jëm beneen junni bi ci des addi sëñ Touba la junni junni ak ñeenti téeméer moo jëm ci mat la bu sawaay ñeenti téeméer yi social la mooy ko am soxla su jar ñu dimbali ko ca lañ koy dimbali la ci des di doxal mat la bu sifaay ndoxu nu Touba ca kanam rek lay dox nag di laaj lu ñu am di ko def fu ñu xam